investissement naka noonu patrimoine loolee moo tax a jóg forum du patrimoine et de l'investissement bi nga xam ne Dakar moom moo dalal édition bu njëkk bi. dañu dajale tamit ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum patrimoine ndax li nga xam ne moom la wooyee investissement am naa gis-gis boo xam ne pour ma yëggali ko foog ñu jàppale ma koppar yooyu tamit pour nga jot dafa am nooy doxalee. ci li ñuy waxtaan tey dinañ ci wax li ñuy wooyee gouvernance bile édition nag la ñu ci bëgg mooy fexe rek ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàll wi ñu yëkkateendoo di dóorandoo su ko defee seen liggéey mën a gën a mucc ayib. donc bu ñu lëkkaloowee waxante suñu biir xool naka la ñuy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw fëgg suñuy bunt ci la li ñuy laaj ci ñun di gën a gaaw ci lay gën a xarañ et ci lay gën a doon li nga xam ne dina doon. lu rëy ci ñoom. lu bëri nag ci ay bërëbu liggéeykaay teewoon ci boobu lépp ndaje lu ci mel ni port autonome bu Dakar moom daal di ci porox ndoll ngir fësal li nga xam ne mooy ay yees yeesam naka noonu liggéey yi mu dëgmal. nit ñi bu visiteurs yi ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañuy ñëw ñu bëri mais xamuñu port bi. mais occasion la pour ñu communiquer ci projet yi ci les activités pour leen montrer que ah port bi activités yi lii la mais également ci ci tamit mooy projet de Ndayane dina nekk loo xamante ni luy jëriñ économie réew mi la et qui va changer de manière structurelle l'économie du pays. ci diiru bis bi nag ñu amal ci ay waxtaan yu am solo ay acteurs yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu patrimoine ak investissement ñëw nag partager seen xam-xam noonu seen jaar